le prochain euh, président qui va gérer ce pays-là il va avoir beaucoup de problèmes du fait aussi de yéen quand vous étiez yow tey suba boo jiitee réew mi gay Gueye Dany vous ne tiendrez pas le même discours xam nga lu tax parce que réalité yi du benn et di nga am problème parce que vous avez légitimé des choses qu'il ne fallait pas légitimer ces jeunes-là qui sont en colère la colère elle est justifiée du temps de Diouf moi je me rappelle quand j'ai démarré à l'université en 2000 je me demandais liggéey parce que je voyais ci sama koñ des vieux de cinquante ans qui n'ont jamais travaillé dans leur vie mais ces jeunes là da ngeen leen wax est-ce que warul leen leen wax ne carte lañ ko fii jëlee c'est pas parce que da nga da xiif que da nga war a dajji au champ l'arme dañ ko l'armée dañ ko war a armer on n'arme pas larme la police et la gendarmerie pour tuer des Sénégalais le maintien de l'ordre ci développement la bokk bu ordre amul tey mu ngi nii y a pas d'ordre on ne peut pas travailler xam nga bi Cheikh Anta Diop di wax loolu man jàppuma ne sécurité bii la doon wax déedéet man la sécurité précède le développement bi ko Cheikh Anta Diop di wax dafa nekk sécurité alimentaire nekk sécurité sanitaire d'abord nekk sécurité ci sa avenir Maïmouna ces gosses qui sont dans la rue nee naa la encore une fois soxlawuñu ku leen yedd ku leen yërëm lañ soxla quand vous parlez de ces politiciens Maïmouna ñun on encore un mouvement parce que dama gëm ne man du politique la pratique politicienne bi ñuy def Sénégal moom mooy changer Sénégal gëwma loolu est-ce que dañu wax ne ñi ñi génn leen xeex mais si mais non may man ma ñëw yow tamit. mais si démb rek mu ngi def communiqué te la la ay la résistance continue. waaw mais la résistance parce que dañuy dóore. waaw ku ah. la dóor doo résister. non waaye waa léegi waaw mais xam nga nag yow nag gis nga nag gis nga nag. dangeen ngeen war a def des messages de paix non Bougane ma ne Bougane faut pas jouer avec l'avenir de ce pays là non attendez vous ne pouvez pas parce le vous n'êtes pas plus patriote que qui que ce soit dans ce pays ce que les gens ont fait dans ce pays Macky defu ko ci réew mi li nit ñi jëriñ mi Macky Sall defu ko ci réew mi dañuy dajale suñuy impôt ak suñuy alal di ko jox nous on s'est battu on a employé des jeunes sénégalais on crée la richesse ak value added valeur ajoutée li ñu indi ci réew mi Macky saal defu ko ci réew mi donc il faut arrêter. mais réew mi bu nasaxee yow dootoo liggéey opérateur économique la ku soxla réew mi na sax waaw ku soxla réew mi na sax. mais faites un discours d'apaisement mais ce discours yar leen xale yi mais non lan mooy yar la yar leen xale yi yow gëmal li nga gëm. kon yow gëmoo loolu non mais dama yow gëmal li nga gëm. yow gëmoo loolu bàyyi ma man ma gëm li ma gëm li ma gëm man bugaan mooy xale yi soxla wuñu ku leen yedd ku leen yërëm lañu soxla et moi je préfère yërëm leen man dama leen yërëm et xale yooyu man dama leen tàllal loxo man ba may bokk ci ñiy defar Sénégal man xaw ma Macky Sall ba may bokk ci ñiy defar Sénégal mais Macky Sall kenn tudd ko moom ak keneen ak keneen ak keneen quand vous nous dites indi leen dal ci réew mi mais carton rouge Macky Sall lan la. c'est un discours. Euh, c'est un discours. oui. oui. c'est un, c'est un discours, c'est un argument politique. Mais non, mais c'est, je dis c'est un qui discours. Qui peut être plus fort. Mais non, en, en, en quoi ah li lii du message de paix. waaw du message de paix. c'est un discours waa waa léegi yow lan nga bëgg. léegi ki yor yatam di dóor nit ñi yow waxuloo kooku bàyyil dóore mais ki naan buñ ma dóor nga ne non non non yow bàyyil ñu dóor la. gis nga gis nga attention attention ma ne xaaral xaaral attention. Macky Sall. Maymuna kenn waxu ma ne. Macky Sall mënul yor yatam di dóor sénégalais yi. c'est ce qu'il fait nit ñi ne bu leen bu bu dóoree. C'est ce qu'il fait. Vous demandez aux gens d'arrêter de résister. pourquoi demand, les gens on ne doivent pas résister C'est-à-dire résistance moo warul am ci démocratie. Mais pourquoi pas mais justement parce que ki ñu jàkkaarlool mais parce que ki ñu jàkkaarlool démocratie mu noyyi. Mais vous devez vous battre. Mais merci. Vous devez vous battre. Mais merci. pas se battre avec les armes. Moom nee na il sait se battre. Non, vous devez vous battre. Mais moom nee na il sait se battre. Ah. moom Macky Sall yow ki ngay défendre yow. non moi je ne le défends pas non si je vous le défends. non je ne le pas ki ngay défendre. je te parle à toi. waaw mais ki ngay défendre moom nee na il sait se battre. moi moom il sait se battre et il aura en face le peuple sénégalais force restera au peuple c'est pas Macky Sall qui va déterminer naka la ñuy yore Sénégal. c'est pas Macky Sall moom mooy tracé chemin bi ne nii la ñuy defee élection yi parce que moom bokkul ci élection yi mais booy woote jàmm madame mais ñun jàmm la ñu woote dañ ne carton rouge Macky jël photom bi croix ko génn di ko jaay nit ñi nit ñi di xëccoo lii cent franc lay jar cent franc carton rouge Macky Sall da ngay gis ku ñëw taxaw ne la jaay ma dix mille damay takkal sama muus danaa takk ci buntu kër gi danaa takk ci ci ci ci porte oto forme de lutte mais c'est ce qu'on est train de faire mais ñeneen ñi am beneen forme de lutte bu leen ko bu leen bu leen bu leen xas ñeneen ñi am beneen forme de lutte comprendre lan moo tax ñu nekk ci situation bi ñu nekk et c'est ça aussi la démocratie la démocratie c'est d'accepter non c'est d'accepter l'opinion et les avis Démocra des autres voilà waaw dama ne vous c'est des formes de lutte conventionnelle waaw bu ñu la ko teree nag moom Macky Sall newul wuy wuy wuy yaa ngi fàttaliku la ma waxoon si si euh, Ablaye déclare qu'il est vainqueur on ira le déloger au palais c'est pas un discours violent ça mais dites-moi si c'est pas un discours violent président xippil dóor c'est pas un discours violent président booy dóor xoolal c'est pas un discours violent mais booy yi nekk ci mbedd mi nekk ñun bu ñu xippee dañuy fayu et c'est exactement ce qui s'est passé nee naa la man ak ces politiciens mënuñu bokk mindset madame man dama bokk ci ñi nga xam ne ci réew mi ay gaynde lañu on s'est battu ba yegsi fi ñu yegsi et man li ma gëm mooy cette population là cette jeunesse désori désœuvrée désorientée cette jeunesse il faut leur tendre la main et leur tendre la main gis nga may mun a dara du état état li mu mën kenn mënu ko ci ñun mais li état am ressources yi mu yor nañu ko def fi ñu ko war a def yow bu doon jàng rek ak ay diplôme am na ñoo bokkal classe am na ñoo bokkal promo ñoo la dàq jàng junni yoon non non je suis pas te tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci réew mi amuñu liggéey je ne suis pas d'accord ñu ngi ci réew mi amuñu liggéey Bougane donc je suis je que réew mi dal stabilité la mais loolu Bougane ki ñu jiital ci réew mi loolu ci ay épaulam la nekk